yéen ñi ñuy déglu eh, man euh, professeur Mamadou Sanoussi Ba di jàngale si lycée Jaxaay dafa am lu ma bëggoon a euh, attirer seen attention ci lu xew tey li xew mooy Cheikh Tidiane Dièye le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement daf ne woon ndekete yoo dafa ñëw def visite de chantier ci lycée premier aali kallaj bi mooy ministre bi bi mu fiy ñëw ñun kenn yëgu même suñu autorité lycée yi nee nañ ñoom yëguñu dégg naa sax autorité administrative yi ak politique yi yëguñu ko benn ñaareel ba bi muy ñëw ñu nekk ci jamono boo xam ne dañuy wax rupture Sénégal yi xeex lu bëri pour rupture ci yàq xaalis ci folklore bi mu ñëwee dafa fekk ñu ngi def synthèse mais dañ ko bouleversé parce que kaar la jël duy ko ay nit ba mu fees dell ñu yore seen i bongo ñaata million la ci yàq wala ñaata centaine de mille la ci yàq est-ce que amul woon ko mu xaj kon bu ñuy wax rupture je crois que qu'il nous soit di wax ne loolu ñu gëmuñu ko ñetteel ba mooy bi ñu ñëwee ci chantier bi dañu def saupoudrage dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw jël seen ñaari bale seen ñetti bale wanal ma fii lii nga gis wanal ma fii ñu dajale fi seen ñetti taatu mbalit bale fi seen deux centimètres bi ñu paree ñun xam naa dañ koy jël filmer ko ne ña ngay defar liise bi defaruñu fi dara balewuñu fi dara troisième chose bi mooy le ministre bi mu ñëwee lycée bi visité wu sax chantier bi dafa taxaw rek génn dem yoonam te chantier bi lycée bi moo nekk nii nga koy gis li ngay gis nii nee nañ def nañ ci cent cinquante millions te ndox maa ngi nii ba asamaan ci toq toqalee ndox maa ngi nii kon bu ñu moytuwul bu yàlla ji tawee dëgg na lycée ba meloon nekk lak nekk géej ba kenn mënu fee jàng dina gën a garaaw wala mu dellu noonu donc man en mon nom propre en tant que citoyen maa ngi wax lii nii nañu ko auditer te wax le ministre aussi que sa visite est un échec parce que ñam ko waroon yëgal yëgalu leen ko la mu waroon visiter visité wu ko te discours dëgg ba mu dëgg awaroon dégg tamit dégg ko taxaw na avec le directeur des inondations bi nga xam ne moo fi defar ñu ngur nguri wax seen i wax ànd def seen conférence de presse si c' est comme ça qu'ils veulent continuer pour nous diir que am na rupture wala ay républicain lañ dama yaakaar ne bu doon loolu jarul woon ñuy changé dara parce que li ñu fi def ak lañ fa daan def benn la wala li ñu fi def sax gën cee yées merci